également bokk na ci mu nekk assemblée de rupture yu teggi newul yu bari wala yu ñaaw ci gis yu bari yu ñu doon gis ñu bañ ko gis cette fois mais ñu gis fi ba gis li nga xamante ne moom moo dal député am Ndiaye Gniby tey euh, ñu gis ni kan yi ku ci nekk yaa ngi déposé ay plainte déjà yow ban position nga am par rapport à ça. waaw ginnaaw bu ma ko ñaawloo parce que bi muy am fekkuma fi. Mhm. dëgg yàlla dafa fekkoon ma dem mission ndax xam nga assemblée nationale boo fa ñëwee buñ la yabalee mission mission ba ngay doxi askan wi nga koy doxal. Mhm. ensemble nga liñ ci war a tirer ci ay conclusion ñu tirer ko loolu moo taxoon ñu yebaloonu parce que 14 milliards yi nga xamoon ne bis si zone pour mu wax si coupe du monde bi il faut que mu am ay député yoo xam ne dañuy dem seen dalluwaay normal na wala noonu mm-hmm. loolu moo taxoon ñu jël député Cheikh Abdou Bara Dolly bokk wàllu mm-hmm. jël euh, Omar Sy mi jiite di tête liste Yewwi Askan Wi mm-hmm. président commission bi jël ñaar député Benno Bokk Yaakaar muy Aly ak Mame Gueye Diop ñun defar ñu ordre de mission ensemble yónni ñu jéem leen foofu loolu moo taxoon. bi ñu ñëwee te lan fa defoon ko. Mhm. li nga xam mooy li am ci euh, suñu collègue député boobu dama koy ñaawlu comme ni ko ñëpp ñaawlu. Mhm. parce que man de Cheikh Abdou Bara Dolly du ma dóor jigéen. mais du c'est pas de fois ñuy dóor jigéen assemblée parce que maam Diarra Fam door doon ko fii. Mhm. mais ni mu mel nii nag melu ni woon. parce que amuñu woon maanaam benn euh, kattan bi ak daye boo xamante ne daan mën a yóbbu fenn fi boobu ci ci ci ci yoon wala nekku noonu si poire bi. ñaareel bi euh, suñu collègue député boobu ngay wax euh, problème bi ko dal si man la njëkkee parce que commission ministre agriculture mu ngi teew mais man la saaga. topp ma génn mu topp ma ni damay dóor. maam jaara femme mel ni moom kese suur boobu moo ma défendre te moom pourtant waaye yow yi ña fa. waaw wàllu ña fa. Mm-hmm. mu fekkaat ma sama buntu bureau Omar yu mi ngi toog Cheikh Thioro Mbacke mi ngi taxaw mu fël ma sànni ma téléphone am mais bu ma ko toppoon boobu dinaa xeex ak moom. Mm-hmm. mais comme am lu bari loo xam ne da nga koy moytu mais ba mu toogee ñaari fan ay kilifaam woo ko dafa ñëw jéggulu si ma mm-hmm. ni ma baal ma parce que bi ma ko di andumaa sama sago ma baal ko ñu continuer mais avant boobu suur boobu noonu fekk ni am na problème parce que problème mooy moom bu fekkee ne dafa nekk ci biir commission bi nekk benn bokk yaakaar bokk benn bokk yaakaar Mansour Faye ñëw ak ministère yi ni mu toll ak xëy na fi mu toll ci famille nguur gi mu wote contre ba président de la République yëg loolu ñu mere ko ci il faut que mu am loo xam def ci pour justification jabaram muy def yenn sëy yi. ndax dafa contrôle ministre bi ci watam ci li nga xam moo nekkoon si commission yi. Mm. alors euh, alors Fatou une dernière question avant may jox Fatou Abdou par rapport a ça ñenn ñi jàpp nañu ni li indi problème bi en réalité euh, te lu ñu war a dindi la ñe am nañu am nañu koy wax ba ci suñu invité démb que ñi nga xamante ne dañu bokk ci euh, këru diine wala ñu ñuy ay chef ay guide religieux waruñu soobu ci wàllu politique wala ñu nekk ay njiitu parti. loolu fu mu teg ñoom ki ko wax fu mu yow bu fekkee ne am réew mi ngi war a dox bu la si boolewut bu réew mi tàkkee ñu ne ñëwal ci kilifa diine yi kilifa diine loo mooy doxalum réew da nga see sa loxo man mii di wax kilifa diine la sama waaju kilifa diine la am naa mag yu ne kilifa diine mais li am solo mooy nañu fexe ba ñun kilifa diine yi ñuy woote jàmm ak dal di jubale parce que loolu la soxla si ñun waaye nag na kilifa diine dem toog a fee ñoom ñu sàcc àllu réew mi kooku duñ ko d'accord mm-hmm. waaw alors ñu ñu wax ci ci ci ci leneen loo xam ne également def na actualité muy euh, confrontation entre Adji Sarr Ousmane Sonko bi ñu ci génnee ak léegi gis nañu ne audition yi mi ngi continuer démb capitaine Touré tey MC Niass euh, euh, ban jàngat nga am ci situation bi. waaw li ma si am rek mooy dama amoon sama taxawaay bu njëkk mooy damay naqarlu le complot politique bi nga xam ne ko def jëmee ko si Ousmane sonk parce que dossier c'est un dossier politique Ousmane Sonko c'est un leader élection yi am fu ko àggale mais lu au moyen pour maanaam mën a am ak dal mën a am ak jàmm mën a am il faut que ñu buñ ko dee def procès ñu def ko procès boo xam ne procès dëgg lay doon mais acharnement benn bi daal pour man dafa ñaaw te duñ ko war a arrêté premier ministre nag moom laa si njëkk woo parce que moom si déclaration ne dafa bëgg réew moo xam ñëpp dañuy juboo mais réew mu ñëpp bëgg jubo mais wur ñoo xañ kenn ku nekk say droit ak say devoir mm. kenn ku nekk war nga def say devoir mais say droit tamit ñu jox la ko kon bu fekkente ne ñoom dem nañ ba nga xamante ni xam na ne dossier bi c'est un dossier complot dossier politique te mën naa taar réew mi ni ko sëriñ Mountakha ñaane woon waxoon ko ba ñun ñu arrêté woon lépp lu ñu doon def jëme ko ci manifestant yu demee noonu comme ñun déglu woon na déglu sëriñ Mountakha Macky Sall na déglu ndéglu sëñ Mountakha ci côté boobu. yaa ngi wax dossier politique mais ba tey audition yi mi ngi continuer loolu laa wax sànq. waaw loolu laa wax moo xam nga xam nga am ñu cité. dégg nañu Adji Sarr wax ne moom il appelle à un xam nga moom day wax rek mais boo gisee maanaam cest à comme day wax bu neexee mu wax lii bu ko neexee mu wax lee man li ma si jàpp rek mooy c'est un dossier politique complot politique la jëme ko si Ousmane Sonko. xam nga mi ngi noonu peut-être une dernière question Khady mbirum troisième mandat nekkoon na aussi au niveau de l'Assemblée nationale euh, ban position ngay woy di ci am ba léegi ci bu ñu xamee ne ñoom ñenn ñi faral le président Macky Sall moom ñu ngi di ko gunge sax pour pousser ko mu présenté waat ci bu ñu xamee ne sénégalais yëpp jàpp nañu ne wala ñenn ñi bokk warul présenté wu waat 2024. xam nga li ma jàpp mooy ñun dañuy respecté constitution dañoo war a respecté constitution bi si article 27 xam nga wax nañ ko ba. nopp nit ñëpp seen nopp yi booy. le président Macky Sall wax na ko ay yoon yooni yooni yoon ku nekk wax na ko li ñu ñor mooy réew mi am dal am jàmm. gis nga crise yi nu am nii santé économique euh, politique waruñu si dugluwaat beneen crise boo xam ne dafay gën a indi nag réew mi guuta loolu moo tax may woo ñëpp si euh, dal mais nag ñu respecte constitution bi parce que Macky Sall amul sañ-sañu def troisième mandat. ndax moo ko doon wax jamonoy Abdoulaye Wade conseil mayu ko loolu. loolu moo waral tey euh, léeg-léegi nga dégg assemblée nationale pour que assemblée nit ñi dañuy bëgg di wax pour nit ñi feeñ ndax am na ñoo xamante ni tey euh, bu Macky Sall defu troisième mandat ñoom seen kaso day taxaw ah ñooñu moo tax ñoom ñuy kaas loolu. Mm-hmm. mais Macky xam na ni. wër def troisième mandat te jàpp naa ni Macky ma ma xamoon jamonoy Abdoulaye Wade. Mm-hmm. ak la ma doon wax jamono yooyu noonu ni moom garmi la. Mm-hmm. benn kàddu la am yaakaar na ne ko respecté bi yoon. Touba ci politique yaa ngi fay teg tànk ba léegi. waaw Touba moom maa ngi fa teg tànk ba tey ndax Touba moom dama lay xamal nii maa ngi leen di sant leen gërëm parce que jox na ma loo xam ne mënuluma ko sama bopp. ku bëgg falu Sénégal da nga wax ak Touba ku bëgg falu Touba da nga wax ak man ànd ak Idrissa Seck gañal ko Touba ànd ak Ablaye Wade gañe Touba ñàkk ànd ak Ablaye Wade Ablaye perte Touba ma àndaat ak Ablaye Wade Ablaye gañu Touba ku bëgg gañu Touba da nga ànd ak man kooku nag waa Touba ñoom la maa ngi leen sant di la gërëm di fàttali ni honorable député Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké moom moo nekkoon suñu invité tey merci d'être venu bàyyi la nga tàggatoo en maa ngi leen sant bu baax leen gërëm di am mbégte bu baax ndax xam nga kër comme suñu kër la rek di dolli ñaan rek di woote aussi jàmm ak dal di wax aussi pour maanaam mën a jotaat seen ak seen yële ñi yàlla kenn ko nekk sa war a def nga def ko à partir de maintenant tey 18 dinaa gisante ak benn kilifa boo xam ne dañu waxtaan ci loolu bu fekkee borom kër gi nangu na aussi tamit moom ah ñu jox médiation bi rek donc moom suñu frère la. Mhm. xam ko moom dama xaw a dëgër bopp moom mi ngi noonu quoi. merci merci ah, di ko xeeri dal la rek <laughs> merci beaucoup Khady ah, di la wax la àdduma incha